salaamaaleykum président Macky Sall jot na kon Emmanuel Macron ci téléphone Macron di ko conseillé naan ko bul jéem a ut ay troisième mandat yooyu mun ngaa am njariñ feneen ci Afrique mbaa ci biir réew mi sax ay poste ngi fi di la xaar état bu Sénégal nee nañ dinañ bind livre blanc ngir wax dëgg-dëgg lan moo jotoon a xew ci manifestation yi ay banque pare nañoo lebal Sénégal lu war a tolloog cent milliards ngir préfinancer campagne agricole bi maanaam mbay mi di dëkkmal waa Pastef def déclaration dal na li génn àdduna ci manifestation yi ëpp na 26 te Sonko mu ngi kaso mais këram cité kër góor gi lañ ko tëj Adji Sarr ne moom niñ ko attee digganteem ak Sonko doy ko waa F24 préfet nee na seen manifestation bi du am ñoom nee nañ kon suba dañuy jox marche ba rendez-vous doon denc seenu néew te mu génn àdduna ci manifestation yi ca Ziguinchor police leen fi fekk dóor grenade lacrymogène ci biir sëkk yi ñaaw na lool. lool lool Cheikh Bara daa xam ci affaire bi Ndeye Ndack wàcc nañ ko yeneen xibaar mooy Sénégal dana football ak Brésil.